bisimila dal leen nag jàmm mbokk internet ci kawteef amati na ci biir réew mi ndax justice bi ñëpp yaakaar mu teg leen ci yoon mel na ni jàdd-jàdd am na ci seen biir kër ga ñaar ci ay magistrat ñoo jote ba xuloo ba ne fàng ku ne ci ñoom ñaar di tam sa moroom dëmm ñoom ñaar nag mel na ni dugal nañ seen bopp ci guuta ndax xuloo ba yemul ci seeni bopp justice dugal na ca loxom ba pare am yéenay leeral yëpp teg ca jubbanti leen mu mel ni jamono ji nii ñaari magistrat yi fa ñu nar a jëm amul ndox te garab du fa sax mbir maa ngi ci loxoy yoon ay daan yu métte métti moo nar a tegu ci seen kaw dàq artu mbaa ñu summi la wàccee say raaya nangu say dijaasa ba noppi teg lay daan yu la mën a yóbbu biir kaso lii lépp di ay risque yu nar a tegu ci kaw kenn ci ñaari magistrat yi bés bu ñu xamee fu dëgg féete bu ñu sukkandikoo ci journal l'observateur yi lee daan dina tegu ci ñoom a kéem dayoo jadd jadd ku nekk ci ñoom ñaar su fekkee tuumab ger giñ ci tuddu dëgg la conseil supérieur de la magistrature dana sàkku ci yoon mu teg leen ay daan yu métti rawatina kiñ ci joxoñ baaraamu tuuma di magistrat Ousmane Kane nekk président cour d'appel bu ngom magistrat bi ko joxoñ baaraama di ko jiiñ ger mi ngi wuyoo ci turu ya Amadou Dia moom itam la mu tekk ci ndodda ba Ousmane Kane bés bu yoon gisee ne lu ñu sos la la ko ca nar fekk du neex de waaw ndax bu dee ay waxi neen ay daan yu diis te tar dana wadd ca kawam lu ci mënti am conseil supérieur de la magistrature jël na ay matuwaayam yëkkati mbir ma def ko yëfi boppam te fas ci yéene dem ba jeex li am ba des mooy ku ñu gis ne yaa tooñ ci diggante ñaari magistrat yii di nga am lu la métti lool ndax xiir gi dalay dal waaw kay booy atteekat daan ay doomu jàmbur doom jàddee te tegoo leen fa nga daan teg ña ca des suñu la jiiñee jeng bu mu la métti jërë ngeen jëf Tactic TV